Sara Konaré maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal force du changement ngeen entamé grève ñaari fan renouvelable euh, pour exiger application wu convention collective du secteur du pétrole et du gaz est-ce que mën nga ñëwaat ak ci situation bi. mooy suñuy njaatige lañ ko digaaleen xam nga deux mille dix neuf dañoo def benn convention secteur yi convention mooy accordu parti la bataaxal boo xam ne mooy ëmb ñi bokk ci pétrole gaz yëpp mu amoon certain nombre ñu war ko jox liggéeykat yi mais suñu njaatige ñooñu nekk société de surveillance société générale de surveillance euh, defuñu ko waxtaan nañu ak ñoom nag comme ni ñu législateur boo xam ne chaque weer ñu toog ñu waxtaan waxtaan nañ ba tey def nañ ay PV bind nañ fu d' accord bu jëkk bi dañ ne woon bokkuñ ci mujj gi ñu ne bokk nañ ci en partie donc mun nañ jox ñii duñ jox ñale xam nga loolu mënul am ku mën day am day ku mu amul day loolu mënul dañuy jox mais bi ñu waxee ba tay ba sonn ñu ne kon nañ dem comme ñoom bañ nañ ñun dañ leen seeti njaatigéey mooy ministère du travail ñu nekk suñu bras technique ba ñu fa demee dajeeg ñoom ñoom ñu xool jëm nañu euh, dajale loolu la ñuy wax parce qu'on était dans le conflit collectif en fait. bon, qui est régi par la 271 272 euh, du code du travail des articles bi ñu waxtaanee ba waxtaan mënuñoo juboo ah, ah, ah jaatige dina léegi kon léegi mënu leen juboo xaaral ma bind leen kayit ne juboowu leen mooy PV de non conciliation mm-hmm. bi ñu ko bindalee ñun ñu déposé ñu mun a dem léegi nag ñu déposé suñu préavis de grève depuis le mois de vingt te loolu bataaxul artu rek la mm-hmm. ba ñu ko defee vingt mars xam nga préavis un mois la war a bu waxtaan amul ci diggante boo pare mun nga grève léegi nag xoolal mars bi léegi avril mai juin ba octobre tey sunu njaatige faale wu ah, ñu ne kon nag ñun nan lañ grève ñun lool waaye mën nañu grève ñu daal di grève nag mooy indi bi. Hmm. ñu def ñaari fanu grève yoo xam ne bu hmm. da ngeen koy dàbbali mais est-ce que mën nga ñu expliquer un peu CONARE contenu convention boobu la nga xam ne euh, dangeen ngeen a bëgg ñu appliquer ko lan moo nekk ci biir exactement. waaw convention li ma la waxee am na soixante dix neuf articles du du mbiri xaalis rek sax waaye na xaalis bi am na ci njëriñ alors soo gisee dama lay di jox quelques éléments rek boo gisee am na ci benn treizième mois mooy beneen paire bu yokk ci at am na boo xam ne daf lay gunge ci sa retraite am na boo xam ne daf lay gungale ci wàll kër mooy indemnité de voilà yooyu rek dama la ci jukki quelque rek. Mhm. nga xam déjà liggéey am na solo dem retraité am na solo am lu la gunge ci am kër am na solo. Mhm. waaye yooyu yëpp defuñu ko ñoom. pendant ce temps ñeneen ñaa koy def xam loolu nag da ngay perte loo liggéeykat bi deux ba léegi ñaataat la cinq ans. Mhm. ñun laaj yu sax ku ñu rappel waaye nañ appliqué loolu dégg ñu toog nag di ko xool xanaa soxna si ñu wax leen ko waxaat leen ko léegi nag ñu ne xaaral kon ñu ñu déposé suñu préavis de grève parce que nag syndicat la ñu yëglu ci njaatige yu bees yi d'ailleurs maa ngi ciy di leen wax parce que ñoom ñoo ñu jaboote hmm. muy président de la République ba ci suñu ministre de tutelle monsieur Birame ñu xam ne ñii d'ailleurs demoon nañ ci ñoom sax waxtaan ak ñoom ba ñu xam démb ci suba bi ma leen jot biñ ma woowee dama leen dama leen ne mais yéen euh, ñun su ñu ne ah loolu weesuwul ba tey ah ñu ne ñun dañ leen fii lañ toll kenn defaluñ dara ba léegi waaw léegi nag ñun ñu ngi toog ubbeeku nañ nag pour waxtaan wax dëgg yàlla pour ñu waxtaan Mm. l' essentiel bu dem bay grève nga xam ne vraiment def ko ci ni mu gënee ndax kër yi ñun société sénégalaise ñun ñoo nekk au cœur de notre préoccupation suñu dañu bëgg surtout ñu ngi wax souveraineté di wax développement endogène voilà mm-hmm. donc loolu yëpp dañ ci war a sóor moo loolu daal moo ñu yóbbu grève en grosso modo di xaar nag ku ñu woo y' a pas de def nañ ñaari fan tey bu continuer dara xewul suba ko. Hmm. kon kon mën nañu wax ni liggéeykatu pétrole ak gaz yi dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu métti bari ngeen ay jafe-jafe en fait comme ñeneen ñi wala bariwut. waaw non am nañ ah liggéey nag moom li ma lay xam nga liggéey moom moom jafe-jafe ñoo am. Hmm. saa yoo xëyee bëgg ñu ñoŋal au moins sa payoor déjà benn da nga ma da sax ma wax benn parce que maa ngi ko doon wax ci français bi. Hmm. am nañ benn convention boo xam ne ci secteur transport hydrocarbures la boobu ñu dawal camion carburant mhm. boobu ba tey arrêté bi ministère génnewu wu alors que boobu parce que bu ñu négocier ñëpp du ñu nekk ci taabal bi mais suñu paree day am autorité day gën arrêté yéen ñi ñëwuloon yëpp te bokk secteur bi ngeen di appliqué boobu ba léegi nag arrêté boobu génn am nañu ba tam ñu ngi làqat ci gannaaw loolu di bañ a jox jaati suñu liggéeykat yi seen i payoo ñu war a am donc loolu mooy mooy dëgg bii nag moom spécifiquement bii am moom waa ji dafa bañ ne appliqué bon am na nag lu ñu dëgg ma loon dem bu commencé waxtaan tuuti euh, mais ñu kanam daal sori nañ ci bii ba du si gudd mais quand même ubbeeku ne ñu ngi xaar bu ñu woowee on va échanger des pour voir naka la si jëmee daal. Hmm. kon mën nañu wax ne ay négociations tàmbali na wala tàmbaleegul ak. non euh, amagul amagul en réalité amagul négociation li ñuy wax négociation ñun rek la suñu biir ba tey. autorité bi ñëwagul ba tey autorité la ñuy xaar nag bu ñu sañoon. Hmm. ministère bi ñu jàppante ñun ñëpp oo ñëpp teg hmm. ñu régler problème bi parce que am na fu muy toll njaatigee ñoo jël ne yéen ñoom ñi moom hmm. jaboote ñu hmm. ñoo leen di woo ku jàdd ñu la ee eh, taxawal fii mooy yoon voilà jaaral ni ñu réglé ko benn nan jublu Sénégal je crois que fi ñu toll nii ak pétrole bi loolu moo loolu moo ëpp solo d'accord euh, ñu laaj la aussi en tant que euh, travailleur du pétrole et du gaz ni ñuy exploiter euh, pétrole réewu Sénégal xam nga ni ça fait quelques mois ñu daal di koy tàmbale déjà naka nga ko gisee yow. waaw pétrole bi ma ko gisee moom sant ci yàlla bu baax vraiment di ñaanal suñu autorités yi fi ne yàlla dimbali leen mu jig leen jig ñu ñëpp ñu mun ko exploiter mu jëriñ Sénégalais yi boo xoolee ñoom Mamadou Dia ñi fi nekkoon. ba ñu def raffinerie bi raffinerie bi dañ ko defoon pour sous région bi yëpp parce que ëpp lañ ko defoon moo tax mu tudd société africaine de tudd société sénégalaise société africaine de raffinage la loolu moo la woon ñu amoon nañ gis-gis te boobu amuñu pétrole léegi yàlla dimbal nañ am nañ pétrole ñu ngi koy commencé di manque muy génn yàlla nañu yàlla may quantité yi gën a yokk waaw ñu ngi ci cent baril jour suñ ko mënee dépassé boo yàlla nañu lu gën a bëri mais boobaa nag ñu am jumtukaay mun ko raffiner cest à ko à la SAR ñu yokk il faut ñu yokk capacité yi foofu ñu ak ak qualité pétrole bi comme c'est du pétrole lourd ñu fexe raffiner ko bu ñu ko raffiner ñu mun ci jël li ñuy jëm li ñu soxla ci biir Sénégal la ca def ñu jaay ko. Mhm. comme ça dinañ am ay devises yu dugg suñuy facture yi wàññeeku fi surtout que gaz baa ngi ñëw sax waxuma ko ci France ah. Mhm. dañuy wax gaz pauvre bu ñu jëlee bi defar ci électricité. mais seer gën a wàññeeku Sénégal yi ci kanam daal yaakaar naa ne. Mhm. su lépp jaaree yoon war na mën a jëriñ nit ñi voilà. d' accord euh, ñu doon xaar aussi si njiitu bees yi parce que daan nga ko dégg que ñoom dañuy euh, renégocier contrat yi pour Sénégal yi gën a mën a gis seen bopp ci seeni ressource naturelles est ce que yow jàpp nga ni si euh, est faisable est ce que yaa ngi xaar ñu renégocier les contrat waaw xam nga ku moom dafa am sa tolluwaay am niveau de Mhm. boo xoolee ñun ñii ay gouvernement moo fi nekkoon def ko bu gouvernement ñëwee ne daf koy négocier xool xëy na xool nañ contours yi xool nañ yëpp xëy na lu mun a nekk la léegi bu ñu ko mënee renégocier yaakaar dañ koy def toujours rek pour gën a ñoŋal mbir ko mënee baax na day gën a baax si ñun parce que li ñuy bañ aussi syndrome hollandais li ñuy wax pétrole bi nekk fële nit ñi di ko liggéey te du leen jëriñ dara. Mhm. nit ñoo jóge ci àll bi ñoo jël pétrole dem te da am xew na fi Congo xew na fi feneen. Mhm. Sénégal yàlla ñu yàlla mucc loolu ci loolu. mais aussi nit ñi bëgg ci transparence euh, transparence boobu naka la mën a amee parce que depuis quelques mois xam nga ñu ngi koy exploité mais sénégalais yi amuñ ci assez d'information waaw mais moi je crois que le moment venu mm-hmm. ah, yaakaar naa am naa yaakaar vraiment ci ñi fi ne euh, commencé nañ a leer dañoo fekk mm-hmm. ñu demagul ci plateforme yi li ngay wax noonu par exemple ñun mm-hmm. man mi nekk pétrole xamaguma li xew ci plateforme wax naa ko ministre leen mos naa ko interview mais ñun war nañ ñu mën a yóbbu ci plateforme ñu xam lu fa xew boobaa ñun ñoo mën a relayer information li ngay laajte nii par exemple tey suñ doon dem plateforme xam lu fa xew comme dañuy relayer information facilement sénégalais bu bu gën a mooy am nit ñaa ngi liggéey nag yaakaar naa euh, kon euh, Sara Konaré maa ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. voilà Sara Konaré maa ngi fàttali ni yow yaay secrétaire général bu syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal force du changement jërëjëf Sara Konaré. jërëjëf soxna merci beaucoup jërëjëf.